bismillahi rahmani rahim fa tabarakallahu ñiy ndokkeel mbooloo mi fi teew di ëlbati ngërëm li nag jëme ko ci cheikh seydi mouhamadul moustapha si radiallahu anhu ndax ku nekk xamoon na taxawaayam eh, ci xadara bi ku nekk xamoon na taxawaayam ci njaboot gi lu doon taxawaayam mooy leeral jaww ji ndax jaww ji toll na jamono yoo xam ne lëndëm na ba kenn du gis sa morom waaye fa tabaarakallaahu moo ñu ko leeralal di ñu ko xaaj di ñu ko xaajale ba ku nekk mën a gis sa morom mën a jox sa morom loxo mu mu boole xol yépp nag woo mboolem kuy e, wuyoo ashadu an laa ilaha illallah nga ñëw ci benn baat bi mooy booloo nekk benn woo leen ci ndimbal li nga xam ne mu ngi jëm ci yiw boole ko nag ak dëddoom ci yàlla dëddoom ci àdduna nga xam ne gisul lu dul yàlla du woote lu dul jëm ci yàlla ak tedd nga am ak tabam ak ragalam yàlla te loolu rek mooy bénéfice ndax yàlla dafa wax ne wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa su ngeen di ñëw ci man na ngeen yóbbalu te yóbbal bi gën a gën ci man gën ci yéen mooy ngeen ragal na mu ne ñi gëm nag te ragal yàlla yàlla dina leen dëgal ci àdduna dina leen dëgal ci àllaaxira bon sànga boobu dafa taxoo dëgg ndax dëgg ci euh, njaboot gi mooy li leen mën a jariñ moo mën a jariñ njaboot gi moo mën a jariñ daara ji ndax ci dëgg lañu mën a ame yiw ci dëgg la àtte yi mën a tegu dëgg ci la nit ñi di mën a am dëgër laay ci seen diggante bon subhanahu wa taala dafa wax ne gaa ñi nga xam ne gëm nañu nañu ànd ak way dëgg bu ñuy ut ku ñu àndal nañu ànd ak way way te sanga boobu ku soppoon jéggale la ndax nee na ñuy jéggale dafa bokk ci jikko yi ñu sant jikko yi nga xam ne doomu aadama moom lay takkaayoo su fekkoon ne taar la moom lay takkaayoo ba mu mën mën a rafet te jikko yooyu du mën a jóge lu dul ci bakkan bu kawe fa tabaarakallaahu njéggale googu moo nekk ci moom du mën a jóge ci lu jikko yu kawe borom xel mu mat koo xam ne dangay ngay muñ lor yi di lor yi jóge ci doomu aadama ndax wa in taxfu wa tasfaw fa inna allaha kaana gafuran ndax yàlla nee na su ngeen jéggalee tey jéllale di ngeen xam ne man bur bu bari yërmande la eh, te sànga boobu dafa taxawoon muñ te muñ dafa bokk ci jikko yi nga xam ne moom la yàlla boole ak doomu aadama ndax may la ko xam ne moom la may ruux te ruux ci ci moom la ñuy euh, sukkandikoo jullit yépp moom lañuy dëgër dëgër ba mu mën leen a oyofal bépp tiis ak bépp musiba ndax suñu borom moo ko boppam waa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur nee bu ngeen ragalee yàlla te muñ loolu ci mbir yu màgg la bokk te moom sang boobu dafa woote jëm ci yiw jëm ci ko rafetoo ci diggante nit ñi ndax nee rafetoo moom la bépp jullit war a xëcc jëm ca moom ndax nee na ci diggante ñaari nit du jur lu dul noonoo ci diggante ay xarit ndax bu boo boo noon noonoo sa sa mbokk ay xaritam noonu ko kooku ay seen xarit noonoonte bi dafa dul am benn euh, daytal te borom bi wax na innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum jullit yëpp benn lañu jullit yëpp mbokk lañu na ngeen defar defarante seen diggante yi mbokk suñu ñaawoo ngeen defar leen wax ci ñoom wax rafet dox ko ba jàmm mën a am te sanga boobu wa sayidu jamil bu ne jikkoom yëpp mooy jub te nee na jub ak sellal bakkan ba mbir lañu yoo xam ne dinañu ubbi buntu mébét ci ñi nga xam ne dañuy taxaw bàkkaar ngir soppi seen dund jëme ko ci dund ba gën mu taxal leen naagu ba nga xam ne dañuy wax ne rek lii mënatuñ cee génn ndax borom ba wax na إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون nee na ñi nga xam ne nee nañu yàlla mooy seen buur te amul dara lu leen mën a tax ragal te sanga boobu ci ñooñu la bokk yal na yàlla dool leeram li mu bëgg sang moom sang bi mooy mbokkoo ak jàmmoo ak yam yamoo ci lépp nekk benn bon suñu mujjantalu waxtaan mooy euh, màndargaam ñett rek mooy ragal yàlla jëfandikoo alxuraan ak doyloo lu néew boo yàlla wàcce ci këru ganale ya kër yu màgg ya ajjana jëgën a kawe te nandal ko ci ndab yi gën a màgg bi jaahi sayidina wa maulana wa shafiina muhammad sallallahu alayhi wa sallam